Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité la cloche de notification. Euh, Balla Gaye combat ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux taxaw na revanche boobu Gaston la toujours nan nga gisee combat même aussi combat buy neex la parce que bii passé bëri nañ ñoom ñaar ku si nekk ne euh, am na loo jàngee si combat bu njëkk bi kon dañuy ñaan yàlla rek ñu fekkee ko ak taal ko li jóge si dëkk bi ba ñoom ñaar ñu bëre. mais ñoom it xalaat naa bu ñu bëree changement mën na am parce que ku si nekk peut-être am na loo jàng sa morom combat bu njëkk bi waaw ku si nekk wax na ko nee na am na lu ma jàng kii ne am na lu ma jàng ba ñoom ñaan ñu nangu waat ku si nekk uh, sa staff bi ngay préparé uh, xaj na am na ay failles yu ñu gis donc voilà ñu ngi leen di ñaan uh, ñu fekke ak tal ba ku nekk li nga gisoon sa morom nga bu dee avantage la nga exploité ko bu dee faiblesse la ak yooyu nga exploité ko aussi. mu nekk euh, combat boo xamante ne mën nañoo wax ni xeex mën na ci euh, mënu see ñàkk. waa xeex mënul ñàkk xam nga sànq ñu ngi si waxtaan mën a yow mais la dafa naqaree def analyse parce que boo analyser dañ naan euh, fa dafa far fii wu dafa far mais xeex bi mënul ñàkk mais mënul nekk xeex bu extraordinaire xam nga xam nga Balla damay suivre souvent ñu bëri ñu naan xeex bi avantage kii la Balla mënul xeex mais Balla neexul. neexul duma parce que ragalul te xeex bi mu lay indil xeexu xeexu banlieue la lay indil xeex xeexu xeexu xeexu sénégalais neexul contrôlé man gisaguma ko koo xam daf koo duma normal si làmb ji kon man na xeex parce que nit boo ñimee rek gëm sa bopp war nga am lu nekk Gris aussi xeexkat la xeexkat la xeex bu xeex bu leer lay xeex mais ñoom ñaar seen tànk yi ñuy teg xeex bi mënul rafet trop parce que ku si nekk benn loxo nga mën a xeex sa morom Gris fausse garde la droitier la waaw ay arrêt droit la mën a xeex ak Balla du xeex ak gauche Balla aussi giri fausse garde la du xeex ak moom arrêt gauche parce que day jël remise toujours crochet droit lay xeexee waaw moo tax ku si nekk benn loxo nga mën a xeexee moo tax xeex bi mën na bëri mais pour tey am coup yu extraordinaire yu am ci day jaxe waaw. kon mën nañoo xar komba bi ci ci ci bëre. waaw xalaat naa ki gën a focaliser wu si bëre mooy euh, mooy gagné combat bi. parce que xam nga fausse garde ak garde bu ñu xeex ku si nekk dafa am sa dafa am avantage donc tey Balla Gaye avantage am yëpp crochet droite la lay xeex ak Gris Gris it xeexam yëpp arrêt droite la donc xeex bi mën nañ ko commencer mais ki gën a focaliser wu si bëre bi kooku xalaat naa ni mooy mooy yëpp avantage mu nekk aussi combat bu am am solo maa ngi lay analyser loo tey ah parce que mën nañoo wax ne làmb ji yëpp a taxaw euh, te ku nekk roi des arènes deux fois sëñ bi mën ngaa wax ak ñëpp ba mu ba ba ba mu analyser la mais boo ko amee macha allah lay doon euh, ñu gis ni aussi ki nga xamante ne moom mooy Tapha ak Boy ñaa taxaw combat boobu tamit. waaw combat la boo xam ni ku si nekk am na risque si yow xam nga Tapha Tine gëj na bëre mais bëri nag ténor yu bari. mais jusqu'à présent dafa am fu ko gars yi di di classé waaw donc euh, Boy Niang aussi dafa def examen si Lac de Guiers jàllul mu jëlaat koo xam ni taayu Lac de Guiers la bëri na ak Lac de war a defaat examen euh, li ma ni mën nañ ko bon sénégalais mën nañu mën nañ la comprendre mais des fois duñ la pardonné comme daanu na si la de donc dañ ko naan kon Tapha Tine victoire obligée la. Euh, te Tapha Tine aussi comme dafa bëri ténor yu bari ñii moo am si ñoom ndam ñii ñu daan ko tey bu fekkee dafa jël euh, Boy Niang moom it victoire obligée la pour mu won nit ñi ne si ténor yi ñuy wax si la bokk waaw parce que tey bu ko Boy Niang daanee day gën a suuxaat waaw day gën a suuxaat kon lañ doon wax ay ténor dañ ko fay bëgg a génne complètement il faut mu daan tey Boy Niang pour mën a nit ñi ne maa ngi si ténor yi ñu ma doon classé booy ñaa aussi fa muy bëree. bu dee arène nationale ba la euh, quartier am la presque te def na erreur si Lac de Guiers ñàkk benn examen donc kon beneen examen bi duñ ko ko pardonné kon dañ naan li taxoon muy laaj Balla Gaye ou VIP bi ñu wax ni fa la bëgg a jëm mënu ko fa dem na xaaraat moo tax combat boo xamante ni c'est le combat de tous les dangers. les dangers parce que euh, Tapha ne bu arbitre sifflé fu waa nekk dana ko fa fekk du ko xaar xaaru ko ci dara calculer ko ci dara est-ce que du erreur. waaw peut-être euh, ak staffam li ñuy ñi li ñuy préparé man na nekk loolu comme man bokkuma ci staff man dama wax rek en tant que tey sportif comme ñoom combat la boo xam ni daal ku si xaw a négliger sa moroom tuuti mën nga ñàkk combat bi waaw li ma la wax ci Gris ak Balla moom laa lay wax si Tapha kii xeex ba du extraordinaire de trop parce que tànk yi ñuy jiital la waaw maanaam tey pour nga gis ñaari mbër xeex dëgg dëgg dëgg il faut mu nekk ñaari gaucher ñaari garde normal nga xam da ngay am arrêt gauche am crochet droite mais fausse garde ak garde ku si nekk benn loxo ngay xeexee. waaw ah, xeex bi forcément noonu lay demee. seen tànk day jegeyantoo mais ku si nekk benn loxo nga mën a xeexee waaw loolu moom mën maa la ko wax fii te tey ñi nga xam def nañ boxe xam nañ sport de combat ni muy demee boo leen ko laajee dinañ la wax li ma la wax xeex yu extraordinaire mënu ci nekk. léegi lambaat na xaalis lambaat na xaalis léegi ñoom ñaar jàppante nañu Garga 2 Tyson 2 na ko nombo Tyson 2 war na nombo Garga ñoom ñaar ci suuf Garga 2 na Tyson 2 war na ko nombo yenn na ba ci kaw na ci suuf Garga def na trois appui ñoom ñaar Garga 2 bëgg waaye Tyson 2 da ngaa dëgg daan tey 19 heures 10 minutes 25 décembre au stade Iba Mar Diop Jackson Wrestling Production le gala des espoirs Thiatou Yoff moo nekk suñu Franc bu parcelle mbooloo moo nekk suñu càmmooñ ngémboo ngémbu lu weex moo gën a waa caat waa yoof yëpp ànd ak mooy eh, Franc dem na jëli caat Franc dem na jëli ko day mbapat ak moom dóor bi la bañ waaw combat rapproché moo ko gën a eh, eh. Franc caatu njaago yi mi ngi jàkkaarloog ak ak caat caat kii mbapat kat la de caat rëpp na Franc war na ko ndomba daan na ko ewaay ewaay oh! Néckorel Tyson 2 Néckorel dóor na ñoom ñaar daje nañu Néckorel la ngi dóor Tyson 2 ñoom ñaar ñi ngi daje <laughs> bu la jëlee Néckorel Tyson 2 Néckorel la ngi koy tël waaye <laughs> génn nañ ci biti ay <laughs> Tyson 2 dóor na moog Néckorel jàppante nañ Tyson 2 daan na Néckorel oh jëli bi rëy na waay Tyson 2 jàpp na Néckorel yi yëkkati daar dóor ci suuf doomu ndaayaan bi moo Franc parcelle moo la moo nekk suñu càmmoñ jara mi ngi dox ci kawam Franc bu parcelle Franc daw na jëli ko amaat na tànk Franc amaat na tànk jara deux attention ñoom ñaar rëpp nañu wër na ko ndomba jara am nga problème jara am nga problèm jara am nga problème mi ngi koy dóor Franc mi ngi koy dóor ñetti appui quatre appui oh Franc daan na jara doo fàq ko ndeysaan waaw foofu da koo kóor mu rocc loxo ba mu dóor koy perkil ko Franc Nguer ah doorante nañu day jël na tànk li wëlbati ko wël ko nomba buddi na ko daan ko la ilaha doole doxul jàmm. doole doxul jàmm. Eh, doole <laughs> doole xeeñ. ah kii. kii doxul jàmm doole ci réew mi. nga ne bitim réew. bitim réew. moo ëpp yëpp doole. ay franc mi. dañ maa yónni yàqamti doomu parcelle la. Nday Shinga doomu dàggu école de lutte Songane Gueye. ndeysaan ñu too Max Mbargane Tyson 2 moo yor ngemb lu yi doomu tàngu moo yor ngemb lu weex. Tyson gi xeex. déclenché na Bakar. doomu tàngu Tyson 2 Tyson 2 daan na ko. non da xalaat. da ko ko mu noyyi mayu. ah Bébé Saloum day moom Bébé Saloum day xeex ak Franc ko. jàpp na ko lamb ji jeex na wala jaaxu la kot daan na ko doole doole baajo bi doole baajo bi Franc ku koy arrêté oh kii arrêté na Franc. Tyson 2 Gora Sock Gora Sock door na Tyson 2 jël Gora Sock Tyson 2. Gora Sock Tyson 2 attention Tyson 2 ngir Gora Sock a ngir est-ce que diisul est-ce que diisul ñaata appui 3 appui 4 appui. Gora Sock Tyson 2 Gora Sock dama war ne luur la daw nañu koy plaqué Gora Sock day rëpp Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.